bon euh, salaamaaleykum mbokk yi maa ngi wuyoo ci tur Mamadou Badji euh, di président euh, mboolem étudiant ak élèves yi nekk Dakar te ñu bàyyee ko Ziguinchor alors ñi ngi ci situation bi nga xam ne bu complexe bi nga xam ne ñoo ngi koy dund depuis vendredi paase mooy kër gi nga xam ne ñu nekk bailleur bi daf ñoo menacé d'expulsion boole ci nag yóbbu c'est-à-dire jox ñu benn mandat d'huissier bi nga xam ne Euh, procès bi déjà mu ngi tribunal donc demoon nañu vendredi bi tribunal le 19 bi passé mais dañu daxalaat encore procès bi jusqu'au 2 donc euh, depuis boobu ba léegi nag ñoo ngi ci biti la ñuy fanaan tey mooy nekk sixième jour bi nga xam ne bu ñuy fanaan ci biti euh, loolu tax na ba ñu ngi am ay cas yi nga xam ne en temps normal duñ koy am parce que kër gi ñu nekk en temps normal mën naa ne am na soxla yu bëri nga xam ne yu ñuy mën a defal suñu bopp musuñoo ñaan wala ñaxtu mosu ñoo nekk ci mbedd mi di di euh, saraxu te loolu sax bu ñu ko defee sax suñuy parents lañ dul honneur honoré parce que ñoom ñoo ñu fi yónni pour ñu jàng te ils nous ont mis dans des conditions yi nga xam ne yi war mais tey li bu demee ba am situation bi dootul nekk lu simple day day nekk situation bu xaw a extraordinaire donc ci loolu euh, ñu ngi am déjà ay cas yi nga xam ne yu yu xaw a complexe mais ñun suñu objectif principal du tey jii nii euh, ñu jàppale ñu pour ñu lekk. wala ñu ñu faju wala leneen ak leneen mais suñu objectif principal mooy ñu jàppale ñu ñu fayal ñu suñu kër gi. kër gi nag maire bi moo ko doon fay mais dafa dem ba ci biir fayatu ko ay raison moom avancé na ko donc euh, euh, quant à bi nga xam ne bi ñu laaj ñu wax ci mooy su fekkee am nañu ay soxla spécifique pour livrer ñun mosuñoo wax sa si média ne dañu soxla lekk wala naan wala mosu mosuñu koo wax. parce que problème bi nii nii boo bu ngeen xoolee sax nu muy demee ci ñun nu ñuy xeexee combat bi on on accentue plus sur ni ñuy def ba sauver kër bi donte nag métti na lool te man tamit bu may wax comme am na mbooloo bu ne sama gannaaw du ma waxal suma bopp parce que tey ji nii euh, su fekkee moom maa leen yilif ñoom ma nekk seen kilifa xëy na euh, maa ngi mën di faj sama yenn soxla yi sew mais am na ñenn ci ñi nga xam ne tamit ñu fi nekk am na seen yenn soxla xam ne situation bi nu mu demee nii na si ñoom ba mënuñu fajal seen bopp seen soxla bi ñuy fanaan ci biti tax na ba euh, ñi nga xam ne en temps normal dañoo euh, feebar mais ñi ngi prendre en charge mais le fait ñuy fanaan ci biti loolu ni ngi affecté seen état de santé nii dañuy jot souvent ay cas de maladie nit ñëw feebar ne la ah damaa feebar euh, dem naa hôpital jox nañ ma ordonnance partie bi mën naa ko fay mais beneen partie bi mën ma ko fay cas yooyu yëpp ñu ngi koy rencontré mais yooyu d'habitude sax dañ leen di rencontré mais gaawul comme situation bi nii la fa demee tamit te fii ni ngeen gis ni ñun ñooy fayal suñu bopp suñu facture ndox suñu facture courant te loolu moom yàgg nañ ko def sans problème euh, am na tamit ñi nga xam ne ñu fi nekk ñu am problème euh, par rapport ak euh, nourriture bi depuis bu ñu nekkee ci tolof tolof yi ba léegi parce que lan la situation bi da leen affecté financièrement mais tamit physiquement te physiquement boobu noonu moom mooy dem ba laal seen état de santé donc su fekkee ñun am nañu dimbal nekkul ni dañuy yalawaan parce que ñu ci ci loolu ñu fekkee vraiment besoin primaire yi Euh, loolu yàlla def na ni en tout cas ñu ngi koy assuré malgré nu muy métti nag ñu ngi koy assuré mais tamit nit booy wax booy wax doo waxal sa bopp da war a xool ki mujj ki ñu gën sonn ci ñu nekk sa gannaaw donc rien que kooku boo koy xalaat euh, booy lancé appel pour ñu jàppale la.